السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله تلوني ما نجي سنتي الله بباه الحمد لله سنتي الله بباه سنتي الله بباه الحمد لله أجا مامي إيه Adja Mami wala Adja Marème. Adja Mami. ah <laughs> doom. maa sant alhamdulilah. Hmm. sant bu baax alhamdulilah. weekend bi yaa ngi woon mm, wala da ngeen a génn Dakar. très bonne question. <laughs> waaye. que ma dégg. maa ngi o ci jàmm que ah. tuuyu. tuuyu. Lala, que ton cœur il est pas joyeux? Qu'est-ce qu'il a? victime mu gàddaa yi. oh. da leen yërëm nee na. non ça va aller. il faut que ton cœur soit joyeux. sinon le peuple leur cœur ne seront pas joyeux. waaw loolu am na. de. soo neexee journée bi neex. Mm. boo naqarelee journée bi naqare. Mm. ah kon nag xaaral ma a muñ. Ah, yaay seen soqi askan bi yaay seen soqi xam nga li naan soqi nga boo jaay danga naan dama diw soqi. yaa leen di soqi ci journée bi. waaw jox leen seen dotation de bonne nag. pas facile. Ah. bu ñii di gàmm ñii di raas bu ñii di gàmm ñii di raas de moom day histoire ba tëdd jot mu tëdd nelaw yeewu teg ci histoire bi ba. en tout cas daal mosuma gis lii. police bi weq maire bi daal dóor ko taatu pistolet bi. dañ koo war a war jàpp ko. police yaa daan jàpp dañ ko war a jàpp. dañ ko war a ko ciix jàpp. liggéey di ci zélé ak di ëppal baaxu ca. day tax doomu nit ñi ñeme leen. te yéen nit ñi waruñu leen a ñeme. xëy na kaaraange réew mi yéen a ko yor. Mhm. boo leen fi xullee nag di fi wane matadi ba nit ñi ci boppam ñeme leen yàpp leen ba foo leen ne taañaañal ñu taañaañal leen comme jamonoy couvre-feu bi da da ngeen di mujj sàlli. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mhm. yàlla joxee tur. Mhm. da ngay bañ a late. dégg nga loolu. waaw. waaw a bañ a late. boo amee tur da ngay bañ a doom ja ne doom ja. sëñ Mouhamadou Moustapha Al-Mansour am. ah ne autonomie sociale. autonomie sociale. alaaji loolu loolu loolu moo ëpp indépendance gi ñuy jëlee ci tubaab yi. wallahi moom sa bopp pire. Hmm. mooy lu coon way hmm. autonomie sociale. boo nee nii ba lamb sa poos daj ko. faj. jànnaa liggéey ba dee indépendance. Hmm. dégg nga loo xalaatit am foo ko yebbee maanaam ñu bëree bëri ñi ngi xaru alaaj ndax ay bagages yi nekk seen dënn te mënuñu fu dañ leen ko dul sax may mhm. wala même bu dee dañ leen koo may tamit ñoom mënuñu ko ndax xat-xat wu ñuy dund ak ñeneen ñoo xam ni it ñeneen ñoo xam ne alaaj bu tontul audio bi du alaaj bi du du tas ñoo xam ne mel ni mami Sambo bokk ci njaboot bokk ci famille xam nga ñun Afrique moom ñun Afrique suñ famille macha allah kilométrique boo fayee ko ñu ne la sa yumpaañ mantulaay compal ko sax. yow seen jaay ba barki démb indi na fi ordonnance vingt deux mille cinq cent par force. ñoo xam ne dañuy joxe te joxe bi yeggul sax seen xol. mais neex naqari di ko def. parce nit ñooy toog ne la par force lii di ko def. Mhm. dépense boo ko yëkkati. si par exemple man ñu joxe dépense bi ci kër gi ay ay atam jox jox sa yaay atam jox jox sa yaay eh jox ko jox ko say sœur muy say njëkkee jabar atam na sa na say njëkkee di jox say jabar dépense comme ça ñu gën a respecté seen i njëkkee ci biir kër

un suivi éternel. éviter ni nekk mu toll fanweer. merci xam nga boo nekkee yàlla buñ la nattoo nga nekk koo xam ne yow yow foo gis mbooloo dem nga fa toog di leen fompal seeni dàll. Hmm. foofu rek ngay mujjee. nekk góor wala jigéen yàccaaral. nekk góor wala jigéen tayal. yaafus. nekk góor walla jigéen yaafus. Hmm. nañ dem ba ñeent fukki at yi mat. Hmm. ñu xool fa ngay mujjee. ak lu la ubi ubi. ubi ubi ubbi mm-hmm. ak loo yor ci teranga teranga teranga du feeñ du feeñ say doom du feeñ sa jabar du feeñ ci yow ndax sa jaara tax mm-hmm. dafa am benn dictature boo xam ne moom mooy sa kaw bopp mm-hmm. loo bëgg def tàggoo biyee màkka boo koy may nit sax di nga di nga ne ah dégg moo ko yóbboo màkka tey mbokk ray ma fekk yàlla xam na ne yeyool mais doo ko chien léegi nag moo tax suñu takk der yi war nañ def seen kéemtalaay kàttan ba bu leen nit ñi yàq. Uh-huh. waaye nañ leen miin. Uh-huh. ba mujj gi gars yi bu ñu leen gisee toni ak ñàkk gisee toni mooy yem fii boo fi gisee policier bu solul toni ngeen songoo xeex avant carte baa génn. Uh-huh. ñu bëree bëri toni bi lañ leen rusé alors que mën nga ko bañ a rusé sax toni bi su présenté woo rek nga def ko ni sol na toni. ndax moom muy toog. yor sa kaaraange suba ngoon guddeeg bëccëg. dégg nga loolu léegi nag li xew démb fee gàddaay maire boobu noonu ñu jël crochet bi taatu fetal bi ginnaaw mu dugg moom ci biir ci biir oto borom lu weex li maire bi waaw su fa doomam bu góor nekkoon nekkoon ba mel ni policier boobu amul yar yéema lay dund ak dee ba kanam fa lay des dee bakkanam fa lay des. parce que bu ñu jël taatu fetal. dóor ko sa waajur wu jigéen. ci ginnaawam. boole ko bu max mu daanu ci tooñ. waajur wu jigéen wa nekkoon ci mu xat-xatu jotaat alalam. alaaji bakkanam moo fay des. soo yoree fetal di nga ko génnee fekk ñoom it yor nañu fetal bakkan dana faroon fukk ci ñoom dee nañu ñoom waa gàddaay fukk ci ñoom dee nañu. fukk coono àdduna fii fii salaire Sénégal yi alaaji hmm. fii nit dafay mën a liggéey maanaam ñetti at rek jënd fi kër déedéet ay at fii banque yi pour ñu la pour ñu lebal la alaaji hmm. nombre de million boo war a mën a leb nii ciix tey hmm. maanaam ñu lebal la tey nga commencé tabax tey tey tey tey salaire boobu nan na war a toll banques yi bu ñu lay lebal dañuy xool yow sa salaire Hmm. ba xam war ni la mën di dagg amna salaire fu muy tollu sax nombre de millions bobu ngay am hmm. Hmm. parfois sax mëno am 1 million ça dépend ci salaire yi xanaa li la <laughs> bu dé di ko fay ay fukki at ak ah, ah, waaw yow mani mani gis nañ fi ñoo ci état fonctionnaire état euh, logement euh, euh, état alaaj lañu nekk ba que comme que ñooñu comme que ñooñu ñoo amul kër. baax na asamaak nag suñu yaay yi nga xam ne démb ñoo nekkoon ca gàddaay ah. di jaay di dëbbal dëbbal. ñu baree bari bu dul woon ak miraas duñ mës a dégg kayitu kër ci àddina kër ga woon ak këru bu nit nag dëbbal dëbbalee ci kecc xam alaaji ak question bi bu muy jaay par ngoon wala cuuraay genn ah. wala fondeem ah. wala jaay jënam ak mango ba tabax ba yëkkati. Hmm. fondement nga xam ne moo gën a metti moom. moo gën a metti defarum kër. wallaahi finition gën a metti fondement ak defar. maa la nga ñëw indi sa sandaraan alaaj maasale lépp. maasale lépp mu mokk rumbux. kooku taxaw nii di xool ne man fii laa dëkkoon. zone man nag ci tooñ. tey tey fii la ndaraan yi jaar ci tooñ. nit ki ne ci mitit googu. yow bu dee journaliste nga boo fa demee alaaji di def hmm. reportage. Hmm. am na noo leen war sax traité. Hmm. ñoom victime yooyu. ñoom victime yooyu am na noo leen war a mën a traité. dëgg yàlla yow journaliste bi ba seen élément bu génnee sax président de la république bu ko seetaanee am ñeewantal ca ñoom. Hmm. waaye dem def fa reportage woon leen ne leen yéen it nag da ngeen a war a dem toog nag. dégg nga loolu yow mi fa yóbbu pour wàllum kaaraange di police bi yi boo fa yeggee am na neneen noo leen war a traité. seen alal la ñuy yàq xam ne la ñoo ne ci xat-xat. seen la ñuy yàq. waaye ma ne la alaaji xuloo boo xasee ba ne biir bu ñu doon di jubóole. nga ne ko yow mën soo yow mën ngaa waat ne yow nga ne man man man damaa man Zik FM man. 5 hmm. millions man maa amee dara fan laa jotee kees. Hmm. may wax nga koy wax ci rajo yi mu yaa ngi nii gars yi nga ne man ngay xoox gars yi man maa fa dem. waaw eh, maa ngi meer ba ma def fa léegi yow daal xam nga meeru ngay xoox ma ne la waaye di <laughs> xuloo la woon waaye. da nga ma ne damaa détourné ku mer ku mer alaaji. Hmm. boo fa demee yow seenu wàllu kaaraange. wala ngay atte. loo fa dégg sax yow mii atte bu nga naxare. ñaar ñuy xeex ngay atte alaaji. kurpeñ bu naawee ba dal la ca bët. yow bu mu la miti. parce que tontu ba sax xeex ba la woon xeex ba la. kee la doon yokkantalu loxoom dal la ci bët. bu doon nguur lañu amal affaire directement sax. sax mun naa mun naa xaw a gën a woyof ci ñoom ci nañuy réagir mais benn nit akub jubu boppam rek lañu amal affaire bu nekk fii waaw benn nit bu tudd Babacar Fall. yow mani waaw mani alaaji waaw. wala ay xaw ma wax naan audio bi mënu ma ko taay ko nga xam ne kaay kii <laughs> kay lekk moo gën a kaay naan la wax sa wala xeexle ay victime nga leen di tontu dañ naan mon objectif est atteint xanaa déggoo li ma wax man ba ci Facebook bi nii. dëgg de ba ci Facebook bi. su ma leere ne kii nii lii muy publier nii man amaluma benn njariñ intéressé wu ma wala sax léeg-léeg mu xaw maa na xare man dama laa bloqué pour dooma gis du duma la gis mu yomb. non non nga noppalu. ma ne loolu laa ma waxee man na léegi xolu gar mi laa yor nopp gar mi laa yor butu gar mi laa yor. li ma neex laay gis li ma neex laay dégg te li ma neex laay wax. yow moo moom moo ko jàngaloon deux mille deux mille quatorze Arabie Saoudite yaay Oulimata Dioum. wala man de léegi doon laay wax. man ma sama doom ji sama doomu xol ji dama laa bëgg. na nga fexe ba saxal sa bopp nopp gàmm yi sa nopp bu ci dégg lu dul li la neex. man de man de yooyu laa def de <laughs> loolu moo. la laay def de. ah gis ma gisee lu ma. ala gis ma gisee lu ma metti nii ay seconde la may metti léegi. effacé naa ko xool la nga xam ne moom laa jublu objectif man tant que may xalaat sama objectif rek ne lii laa bëgg atteindre te laay jublu alaaji amatuma lu ma métti sama àddina. ñu xam ne da ngaa ragal dañuy acharné sa kaw. waaw waaw non alaaji alaaji déggoo li mu la da nga ma ne. Mm-hmm. lii man bëgguma koo dégg wala neexuma ak yooyu. Mhm. wala mu leer ma ne maa tax ngay def yii. Mhm. dootoo ko defati. <laughs> bolok parce que coow li coow li yëpp mooy dañ dul daje si mbedd. Mhm. sa ginnaaw machine rek ngay ne. waaye man moom fu ma dëkk xëy na fii moom gars yi xamuñu woon ndax fii ku xeex fii moom ku fi xeex dañ lay dàq. xeex ci service à la. leer na la. fii moom yaru rek ak ragal moom moo fi war. te ñi ma fi nekkal sax xam nañ ne mbër mi ragal dégg nga waaw fa ma ne ñooñu xam nañ ba xam kii eh, xuus naa ñàkk na waaw dëgg dégg mm-hmm. yooyu nag nga koy def si sa ginnaaw téléphone yeeg yooyu yooyu garaawut ñoore la ñu dox ñu dem point whatsapp bi def nga fa lu la neex a ah, fexe nga ba am sama numéro def lu la neex bloqué facebook bi bloqué léegi nag bu dee yow li ngay wax dëgg la ci yow nañu daje mm-hmm. comme nga xam nga ma te man xam nga fi ma dëkk. ndaje gu neex. waaw kay waay foofu lay neex waaye yii nii di tontu yooyu yëpp jaru ko waaw yow yaa ma ne mbiibal doxalam. mbiibal. nga jàppal mu jàpp fee. ñu doxal. rek Sénégal jëm kanam. police bi la ñu ne dañ koo war a ci image yi boo yi fi nekkoon ci couvre-feu bi wala ci ci ci jamono yi euh, xaw ma lan yëpp alaay. Mhm. gars yi image yi la ñuy jël di di xool booy yi nga xam ne démb ñoom ñoo def émeute bi ñoo taal fii ak fii ak fii wër leen jàpp xamee leen leen yoru vidéo yi ramasse leen hmm. ba ci famille ñi ngi boobu noonu ñu doon wax xaw ma ci tëngee la xaw ma woon defal mais ñoo ñëm ci vidéo yi la leen police jàppee hmm. dégg léegi nag Aly Ngouille Ndiaye ak directeur de la police nationale xool leen vidéo bi waa ji kët sunu maire bi jox ko crochet taatu pistolet bi visionné leen ko ngeen xool ko xàmmee ko. Sen TV am na ci tom moom. il faut l'arrêter la sanctionné. seen TV moom tan la ci am vidéo bi. waaye une personne à la di désarmée yorul ngànnaay yorul dara. nga ko jiitu euh, mu jiitu innocent ba pare nekk victime. yéega ci oto muy yéeg. mu dem bay épi épi bu doon dañoo résister ñu ne waaw mais résister wul ñaari maire yi. bu doon dañ sax ñaari gars yi résister wul ñu ne la Ahmed yemaleel sa wax ji xamoo ñaari copains yi lan la ñu wax policiers yi mais say moroomu ndey xanaa bu ñu meroon bay saaga sax am na noo war a comporté woog ñoom say moroomu ndey. ngay crossé di dóor. taatu fital ngeen ko teel sama maamu ndey. ah ak ah, fa fuñ ko fan lañ ko ko dóor fan lañ ko ko dóor alaaji. <laughs> waaw maa ngi rafetal rek naan ci ginnaaw di. wallaahi. sama moroomu ndey. <laughs> ci toogu kaayam nga ne ko ko réel. waaw. loolu loolu xam nga loolu wallaahi ñaaw na wallaahi ñaaw na wallaahi ko ci loxo. wallaahi ñaaw na dóoroo ko ko fenn. fu dul ci gannaaw nga ne ko ko ah, plus ba max ba max ba ba wallahi te da nga nekk xale bu tuuti nekk xale bu tuuti yow amul boo sa say 30 ans sax matagul boo sàggane te nga ne bëgg ngaa def carrière baax na fooy avancé ñun foofu rek da ngay dem ba ba ba xëy retraité nekk gobi góobee leen tane billaahi dara doo ko doo am oto doo am kër doo doo gradé yow yow yow doo gradé yow yow. gradé yow. na doo nekk général lambe. xam nga général lambe sax ma ne ko dama yërëm mon général. Mm-hmm. benn jour dama ko woo mm-hmm. te après mu nekk mu nekk général. waaw xam nga moom waa Aslem Paris la Guédiawaye. ok seen seen famille foofu lañ def. ma ne ko dama la doon yërëm. Mm-hmm. mel na ni sa mbokk moo am ñu dénk éducation nationale. wala mbay mi. wala Sénélec. muy ay temps kuñ ko dénkaat. Mhm. say mbokk yi xam ne suñ doom ji dee na. wallaay ndax bon nga société ba bonoon. Mhm. Mhm. léegi nag général bi ma ne ko man moo général man dama la doon yërëm su manifestation amee. parce que yow nekkoon nit yooyu. mais ni nga mel noonu nga ko doon gérer yàlla di la sutura. ah oui. alaay da ngay gis ñu ñëw mu ne léegi xam nañu def waaye léegi ñëw leen ma gunge leen. nii. dama leen dama leen koo ñaan rek. gaa yi fële la ñuy ne laam nekk fii léegi su ma demee reportage ma koy xool nii <laughs> ba ne tey rek lay dee tey moom. ñuy mën a gérer yëpp tey lay dee. mais bii lay wala alaay. Hmm. day gérer. da koy gérer du ko ne la. léegi wuy ma man maa leen ko ñaan. comme que buur tey dañu tere ne fii léegi lii ñu nag leen rek lañu ñu fu ñu tere ne lii bu mu fa am ñun ñuy wax nit ñi ne leen lii bu fa am suñuy kilifa ñoo ñu ko sant ñu war defar fii kon ordre mais désordre waru fi am tey léegi nag man maa leen ko ñaan pour ngeen dimbali ma ci sama liggéey alaaj loo nekk dof dof dof ku la ëpp doole yor ngànnaay ñëw ñaan la da ngay am kersa da kersa waaw mag mu yaru la man mu yaru moo tax loo ci gis parce que boo dof dof loo alaaji moo tax loo mu tay la ci mu tay la ci lem mm-hmm. mais xoolal mu ne la yor naa ngànnaay yor naa lépp lépp lépp lépp lépp mm-hmm. mais xoolal man tooy mm-hmm. man maa la ñaan nit koo xam ne yoroo ngànnaay yoroo dara taxaw ci kanamu koo xam ne dafa armé wu jusqu'aux dents yor lu tolloog trois cent takk der ci ginnaawam doon seen patron taxaw bu leen ne sëpp grenade yi pakarnaasi nii rek mu ne la xoolal léegi man maa la ko ñaan yonent nee na koo koy jàmbaar. wallaay sa yaram bi lay yàccal. alaaji bañ na ko kan mooy jàmbaar. Mhm. mu ne jàmbaar nekkul nga yor jaasi. yéeg fasu naaru góor. Mhm. di dagg bopp yi rëj tëj rëj tëj ñu leen waaye kii mooy géree yonent nee na kooku du géree xam nga kan mooy mhm. ki nga xam ne yow da nga koo féete woonuk rey. ko. mu yor même position ka yow tiim ne la baal naa. baal la koy jàmbaar. policier yi démb alaaj que kër sunu maire ba mhm. du jàmbaar mhm. du jambar, dañ la doon nekk jàmbaar yaa yéen xam nga jigéen ngeen bu doon ay góor ngeen rek sax heure yi kenn waxatu ko man xajuma ci ñoom ndax damaa yori ngànnaay mhm. rawatina nag yéen ngeen nekk ay jigéen xam nga kon jekku naa leen waaye nag yaay kaay leen nag ñu waxtaan ba gunge leen ba jëlee leen fii yëpp di ngeen ñëwaat de grève de la faim mais bisu tey bi moom ah, dafa ne

fexe ba nax étudiants nax leen waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom. ba booy finalement ñu mujj topp ko. Ah. moom cundum cundum kese. cundum. te ko neexoon mu dem wooyi gars yi mët ba ca ginnaaw. takk dere ñu ñëw leen ne leen acca bisimilah. nañ leen defante léegi beneen nit deewaat fa. Mhm. a ñun dëkk bii moom maa xalaat da ngay nekk fii di kii sax ñu ne la yow. waaye yow tàmpet nga quoi. ñeneen ñoo massacré booy civil yi nga xam ne. ñeneen ñeneen ñu fi def naka sul noonu itam ba ñu naan euh, commandant moo rey diw wala nangam. waaw kenn du leen tudd ci àddina. parce que da nga leen di xam-xam seen tur waaye. boo ñëwee ci seede yi rafet yi doo leen tudd. doo ko fi ndax ndax la ñu dafa xajam. ñu leen ko seedeel. doo ko fi day rafet. boo tudd koy xajamal duñ ko fi tudd mu ko. boo leen fi tuddee itam nit ñi dañ xam ne xanaa lii moom yaa quelque chose ñoom waa tës yi nan lañ mën a apprécier kii nga xam ne moo toog réew mi ci àdduna toj kotu réew mi ci suuf ñooñu ci kaw ñooñu ci suuf ci kaw ñooñu ci suuf com com su tey bii bis bu mag a mag a mag la ci réew mi wallaahi Macky Sall sax ci boppam moom xanaa moom moom ngu boo demee nguuroo ko jàpp rek ak jikko africain mm-hmm. mais tey jii lu mu bon bon bon bon bon ñoom chaque vingt trois juin tous les acteurs maanaam excepté le PDS ñoom ñëpp chaque vingt trois juin waroon nañ koo màggal benn màggal bu ndaw bu dul dara sax ña deewoon ca 2011 ba tollu woon ci fukk ak quelque doo ñoom Mamadou Diop. waroon nay tax waaye tey gis na li journal bi wax Les Échos nee na acteurs yi ña ca gënoon a bari ñëpp tey pouvoir lañ fee tey. nooy def ko 23 juin du dee. léegi ana M23 sax. waaye man yaakaar sax dinañ ne na yéen ak waaja dal. xanaa Cosmos euh, M23 cos bi. dinañ ne aqaw paa ba waa jooju moom dama koy dégg souvent. Abdourahmane Sow Abdourahmane Sow. ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko koy dégg souvent. sinon yàlla yàlla may ko wér. amiin yaa rabbal aalamiin. donc donc jàngoro ji da koo dugg pour ñu ñaanal ko yàlla. yàlla may ko wér. amiin baax la baax naan baax. vraiment waaw correct. te dafa ñun ñoo bokk benn groupe WhatsApp boo xam ne professeur Seydi yëpp ñu ngi ci biir. ak ñoom Abou Diallo. mi ngi liggéey fan moom. ñëpp ñëpp ñu ngi ci biir. fan rendon doon waxtaan ci ay infecté yu fan yi. non pour pour xeex ak affaire feebar bi la ñuy séddale masque fu ne. oh fan jàngoro gi rek fan yee ñu ciy waxtaan maa moom mi ngi may dégg. ñu ngi ciy waxtaan ndeysaan. jàmm ba mu boole maag directeur fan jox ma numéro oh yal na la yàlla yëkkateeg jàmm ak salaam yal na la yàlla yëkkateeg jàmm ak salaam ku disponible ku baax ndeysaan. amin dina ko may incha allah. maa génn ci réew mi di feebar bi feebar bii. sonal nañu de. feebar tax na démb léegi alaaji bi bii feebar bii day feebar bii day billaahi suñu àq bu ko dalee. <laughs> révocable la. voilà ah. révo révocable Covid 19 bi gis nga groupe WhatsApp bi alaaji noonu la toll noonu la tudd. naka. révocable. Rémo Cap groupe whatsapp bi noonu la tudd mais gis nga laaj. Mhm. feebar bii. Mhm. démb damaa ànd ak El Hadj Malick Gakou ñuy dem di jaale ji. Mhm. ci El mu mag. papa yi ñoom Baara Gueye. waaw waaw waaw ndeysaan. feebar bii. feebar bii. musiba la feebar bii. <laughs> Ah, bu ko dalee. Hmm. <laughs> ñu sonal la de jaale jaale waale sunu waa ji El Hadj Thierno Fall. vraiment sonal la euh, ñu wëllëre mi sëñ Saliou Sarr mooy doomu sëñ Bassirou Sarr jaamu sëñ Touba. ah waaw ndeysaan Touba ndeysaan. Euh, démb la la génn fii euh, euh, àdduna hôpital principal. bi waaw. feebar bi nag ndeysaan feebar bi ay suñu àq bu ko dalee. moom moom moom Covid. démb Covid dafa lëkkale nag. démb ñuy <laughs> mais koo gis ndeysaan alaaji nuyoo bi. Mhm. waaw. baara gi sax nii laa ko nuyoo nii. di conconte mel ni ñu ne ci guerre <laughs> conconte wallahi febar bi kenn ñemetu sax sa mbokk sa mbokk sax ñemeto ko eh ba président alhaji malik ak ku nekk alhaji ya nga taf sa bakkan bar mm. muy tuwante ba mel ni tulé ak mala ci escalier ko japp ni ki dafa am corona metti de no dag na sama nopp yépp ay metti nopp yépp dag yéndo légui légui metti na tamit léegi alaaj parce hmm? que naa ba sonn. alaaji baara yàlla na ko yàlla xaraaj. tesu tey bi. Hmm? Hmm? tes tes bi tey lépp a métti alaaj. tesu tey bi boobu ñuy daaneel nga jéem a xool noonu noo ko neexalee de parce que man tey sama xol neexul ci <laughs> xool noo ko gi alaaji. <laughs> <laughs> wala ca Touba. waaw gi. dagg euh, gor matt yi di jaay matt yi la doon def. Mhm. waaw waaye daal dañu ko xaañ. Mhm. Mhm. xaañ ko. xaañ ba mujj de ah xaañ. ah kilifa yi xaañ wenn xaañ alaaji. kilifa yi buñ sukkandikoo ci ñoom ki ko def nee benn xela xel mi daa sutante mu tim googi xeer ah nee nañ kooku wérul de waaye daal xam naa daal alaaj daal man daal lii daal jaaxal na ba xañ na ko ba pare mais dee na ñaati géem li nga xam ne moo ko joxoon foofu yëpp nag soxnaam boo doon expliqué alaaji le film des faits mbir mi daal ni mu demee waaw waaye xam naa daal doy na waar daal xaañ ba góor ga dee bopp bi toj bopp bi ah loolu nag xaw ma yan façon xaañ la laa xamul man ndax lii wér di nga dox heure couvre feu di wër di agressé man di bañ te yor sa birig fekk mag buy gardien di fóot ay yëreem guddi nga fekk fa dóor ko ba tojate boppam bi yëpp ngir jël la mu am ñu ne wéroo dañ la yóbbu dara xel. Hmm. nañ jamono jafe jafe yomb. <laughs> ki ñu rey de jàmm ak salaam rek la sekk ak ñun ndax bi muy bi muy bi xamante fii papay xale yi ñii xale boobu tout tànk lañu sama seen doom baay dafa dem Casamance ak jabaram. waaw ku naan Amadou Ndiaye moom moo ko andi daanaka ci kër gi xaritam la léegi nag fi ñu. moom moom bi fi ñëwee liggéey. moom waaw moom dafa doon liggéey di xarmat. Mm-hmm. waaw liggéey xarmat maanaam la la la tàmbalee. Mm-hmm. léegi nag sama borom kër bi papa xale yi dafa laa biir soose la. Mm-hmm. waa Guinée Bissau la mu daal di ubbi ne bi jox ko ko. abal waaw jox ko ko. mu nekk waaw mu nekk fi waaw. moom mag la woon ah kan sama borom kër bi ki néeg mooy kii ah, Fatou waaw mag mag la wala am 60 ans 60 ans quelque waaw ci ñu ko Sadia Camara la waaw léegi léegi nag mu léegi nag maanaam muy liggéey gardiennage fële Mbàkke bi liggéey liggéeyee gardiennage rek yàgg na fa fa xam mun ma wax après nag waaye yàgg fa di liggéey di liggéey di waaj bu liggéey foofu bu guddee day ñëw tëdd si déedéet du tëdd si bu añee fii yenn fii ci man ba ngoon bu huit rek mu ñëw jël velam dem mm-hmm. daal di tàmbali euh, monté mm-hmm. mais yoru foon jabar déedéet yor yoru jabar yor moom rek moo fi nekkoon ci kër gi mm-hmm. ngeen abal ko néeg waaw ñu abal ko néegam rek ñu hébergé ko fii jàpp comme suñu kii rek comme seen mbokk waaw suñu mbokk waaw. maanaam yërëm ko daal yërëm ko waaw. léegi nag mu toog ci ñun rek fi mu toogee ci ñun nii nag léegi nag keroog jeudi alxames ci ngoon mu ne ma maire dem maire am 1000 francs nga nii jaay ma omo ma jaay ko omo bu 100 francs li ma lay wax rek ci laajte omo léegi ma mu ma téeméer bi jël ko ma jëlee ci ceeb. may la ko waaw pour dépense rek pour dépense am mu ne ma téeméer bi. waaw téeméer bi daf ma ko jox rek pour ma dimbali ko xam nga dañuy yor dépense waaye ma jox waaw pour yokk dépense yokk dépense mm-hmm. léegi dama delloo ma jël quatre cent franc delloo ko mm-hmm. ci laa mu jël nag xam ci nouvelle li mm-hmm. mu kii léegi nag beneen mbokkam nag mu ñëw fi ci suba si la lendemain rek ci suba si nii muy vendredi beneen mbokkam mbokk mi ñëwee nag mu ni moom dañ ko agressé moom xëyul ubbi si xëyul def dara xëyul ndékki si waaye 7 heures rek day ñëw ndékki si su amee liggéey dem gor dem du gor waaye nag mu daal di kii nag euh, mbokkam boobu doomu baayam bi ñëw mbokkam la baayam baay la ci moom sax. Ah, waaw baay waaw. naka la ñëw nag léegi bi mu ñëwee nag mu ne ah Camara ba mu euh, dañ ko agressé jàll na ko fële jaanatu moom ci vers 11h. waaw moo xam moom lañ ko dóor daal nee nañ. lañ ko dóor ci bopp bi waaw ci bopp bi. bopp bi da xam nga dafa yàgg seeñ xam naa. si mag la parce que 60 ans la 60 ans et quelque waaw euh, fii Mbacke. Mbacke lañ ko doon waaw waaw. waaw fi ñu ko ko defee nag léegi ñuy jàllale ko xam nga. sàpp ñëw nag yóbbu ko. léegi eh, nag ñu hospital ngeen ko fekk wala fii la ñëwaat gi biñ ko agressé daa ñëw fii lañ ko agressé guddi lañ ko agressé waaw waaw onze heures vers onze heures waaw ah, ci guddi waaw ci guddi rond-point Mbacke waaw waaw ci rond-point xam nga foofu moom dafa rëbb mm. te moom boobu day liggéey si di ñibbi si quoi liggéey si di ñibbi sept heures rek mu ñibbi si ma xelli ko ndékki jël kaasam xelli ko ndékki mm. waaw mu jël mu dem mu jëndi mburoom ndékki ba suur bu amee gor mat dem nga gori moom na yenn fii ci kër gi mm. bu amul nag mu daal di jël velom dem waxtaan ci côté garage yooyu dem doxantu. bu mhm. fa am liggéey léegi ko dóoree mool foofu dafa faatu wala dañ ko jël yóbbu. Mhm. dañu continuer moom ñu yóbbu ko USA. sapeur moo ko jël mu yóbbu. waaw. toog na fa lu yàgg nag après ñu. waaw waaw. toog na fa yàgg nag léegi ñuy jël si ko sapeur ñëw jël si ko ñu hospitalisé ko euh, foofu urgent lañ ko dugal. Mhm. man nag dem naa sax ko. waaye urgent kenn doo gis kenn doo dugg waaw. noonu la demee nag mu fanaant ba vendredi vendredi euh, euh, jeudi vendredi vendredi une heure euh, une heure une heure deux heures et quelques vers trois heures la gaañu waaw mhm. du matin léegi ci suba si rek le lendemain lañ ci samedi gi mhm. léegi ñu wax kër gi yow mi nga rek ñu yow lu baax rek nga ci bëggoon lu baax rek laa ci bëgg waaw sama doom la wax dëgg yàlla takk na wéetal ma sama ñaar fan yëpp na soxna amul woon soxna nag moom moom fan la jógoon ñoom moom Casamance la jóge woon waaw Casamance la jóge woon biñ la waxee loolu lan nga yëg sa bopp hmm, li may sama bopp tey doy na waa trop mhm. dina mel ni sama doom ji moo baaxoon ci yow ci man waa baax na ci man ci ay rakkam baaxoon na ci man tam ay rakkam tam da leen di dimbali mu liggéey ay famem ñoom waaw mhm. rakam bu góor mu bokkal day bàyyi léegi dañu bi mu yóbbu bagage yi. waaw néeg bi nii ci la nekk voilà ci la nekk. Ah, bagage yi dem na. waaw bagage yëpp na waaw. Hmm. bagage yi bi nga ko yëgee loo xalaat. ah xalaat xalaat. ni mu nekkoon yow. mu nekkoon man bu ma sañoon moom war na fi def xanaa 15 ans ak yooyu. 15 ans def na ko ci daaru man waaw bu kóopul waaw. Hmm. waaw léegi bi nga yëgee sa yaram. ah sama yaram rek ma jaaxle tiit rek boole tiit waaye jooy rek laa kii du ma leer. ma maîtriser waaw lekk mu lekk mu def ma ko. Mhm. ma lekk moom. mais rek laa ko yore léegi yóbbu nañu affaire yi ci yoon. waaw euh, euh, xale bi xale bu góor bi xam ñu ngi naan mhm. Solaar waaw mhm. ki ko def loolu. waaw yóbbu nañ ko ci yoon. jàpp nañ police waaw. jàpp nañ ki ki ko agressé. waaw ki ko agressé ba mu jóge ci dee. waaw jàpp nañ ko léegi ñoo kii ko. mooy ki ko agressé. waaw ñu doon euh, kii ko police waaye xale bi daal dafa nekk di dof topp. ñu naan Solaar laa yooyu di dof topp. mais sa léegi dañ koy jàllale kii. dala xel hmm. dala lañ koy bëgg a jàllale waaw. Hmm. pour ki ko agressé. waaw wax dañ ko yóbbu dala. loolu de lañu wax waaw hmm. loolu lañu wax ci dala xel. léegi euh, yow yóbbu nañu affaire ci yoon ñoom. ay waaw mais loolu lañ leen wax daal. waaw loolu de lañu wax. waaw loolu lañu wax waa xam naa xam nga dinañ ko topp après xanaa. waaw loolu ngeen bëgg daal ñu topp ko. waaw ñu topp ko waa ba xam ndax luñ jotee ak yooyu tamit. mais waaye daal gisoo ci moom leen luy woon ne daal moom am na nu mu fi nekkoon. déedéet jàmm ak salaam rek la nekkoon a ñun na wax dëgg a wax hmm. xëy kapatee rek. dem liggéey ñëw tëdd ubbi néegam. Hmm. sept mu ñëw ubbi bu amee xarmat dem xari ñëw toog ñu ñu bokk ñu ñooy bokkaañ. Hmm. ñooy bokkaañ ñooy bokk yëpp ñooy bokk rek. ci wàllu sécurité bi looy gën a wax ñaam pour ñu gën ci jàppale population ah sécurité bi. ah kaaraange bi nag xanaa rek nag wax dëgg yàlla ñuy topp rek ñu topp ko rek wax dëgg yàlla bu mu sës ndax xam nga métti na ba kenn nga jël ko faat métti na. Mm-hmm. kenn waaw surtout maa nga dóor ko mm-hmm. bëri. Mm-hmm. waaw daf ko fekk sax justement euh, muy fóot. rek ma dox ko ginnaaw dóor ko ah, bëri. daf ko foofu waaw foofu ko fóot. Ah, fekk mbaake xam nga foofu dafa wéet waaw. mu dóor ko bëri rek mu daal di sëgg nag li mu sañee nag dafa bari. naa sa woo na leen xam naa ñu lu yàgg ñuy door a ñëw yóbbu ko. waaw. loolu daal nga ci xam loolu daal laa ci xam jàmm salaam rek laa xam ci moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. metti na ma tamit. Mm-hmm. masa yoo xam nga ne du dem. mbokk yi léegi eh, ñëw nañ fi. ñëw nañ fi waaw mm-hmm. waaw toggal nañ ko añ sax ñu yendu fii toggal nañ ko añ. ci suba rek la ku mu bokkal ndey baay ñu yóbbu bagage. daal jël nañ baax ba yóbbu ko Casamance waaw. dañu dugg lundi nii fi mu ne ci horaire bi dañuy dugg horaire lundi bi dañuy dugg ren. waaw. yu mel nii bëri na lu mu fi am. déedéet bëri na lu mu fi am tey damay fi door am moom xanaa ngeen dimbali rek waaw. yow daal affaire bi métti a la. waaw métti na ma trop de wax dëgg yàlla. te yow lu baax nga ci bëggoon nga héberger ko. waaw hmm. waaw dëgg la lu baax rek ci bëggoon waaw. dëgg man day ma ana dafa dox heure couvre fa bay dóore alaaj yomb na de ku def sa tojaange rek ñun la danga dof man day man day jaaxle na man day xam naa dal daal alaaji daal du ko fawé ah ñu koy fawé nak réew mi légui dañ koy fawé def def sa tojange dal ñun la da nga da nga da nga da nga dal Hmm. Ne ne var? Gidiyorum Metin. Stop. Ben Metin otur. Buraya bulurum. Lol. Ancora ne onları. Lol. Lol, lol, lol, lol, lol. Lol sağ. tiki tiki tiki de l'autre. dëgg yàlla de doy na waaw moom. Ibrahima ci kitoo waa nuyul ma ko. Ibrahima Niang. waaw nee na daa daa réerle porte-monnaie bu am carte carte grise carte d'identité carte GAB. carte carburant carte rapido permis de conduire carte resto ak ñetti carte bancaire. réeral na. 19 juin 2020. Grand Yoff lu jóge woon ci wetu centre Talibou Dabo don dem euh, Sénélec bu do bu GEDO bële. Mhm. ku ko gis nga dimbali ko woo ci 77 658 81 02. ok suñu collègue bi ma ko yónnee Ndeye Ndiaye. sama càmmiñ bi aussi samedi ci ngoon nee na ci benn Ndiaga Ndiaye la euh, jóge la muy jóge Ngor wàcc Padois ci pont ci pont bi. waaw deux registres calpe bu def vingt mille francs ñaar carte d'identité carte banque course ak ay facture mi woon ci biir saak bi ko gis rek na ko dimbali woo ko ci 77 376 88 20 doomu sunu imaam la nag jàppale. ah du tee ngeen fay. cikito cikito nuyul ma Youssou Mete. kooku yàlla mun mun sóor yëpp da ngeen fay de. kon ma fay ci imam bi day fay imam. imam kon ma fay ci anniversaire wu. imam nga yaayu Sanusi mi sama xarit bi man ñëpp di ngeen fay. Sanusi man waaw d'accord xaaral ma dem talibati ñëw allo. <laughs> ñaata la ñuy fay. alo di ngeen fay allo. allo Ahmed. waaw waaw kooku. oui Aba Aba xarit. <laughs> Avana da la bëgg ndeysaan. man nga xam da la bëgg. mani. bilaay ah, Matulaay xaw ma ci dara. non xam nga ngir moom. Ah, ah, mani mani. mani mani mani mani nga loo am am narati. li tax tëb ne ma man la xarit. am na loo narati te